tali bàyyi fu ngeen mën ci nekk fond baa ngi ni taxaw na te liggéey na liggéey yoo xam ne gis nañ ko fu ñu daan sonne di ko dajale addiya pour shérif yi nangam ak nangam ak nangam yëpp fond bi tëj na ko def na ko taxaw na fa taxawaay yoo xam ne noppal na nit ñu bëri donc bon fond bi daf war a nekk maa ngi leen di wooyee ñëpp taalibe yëpp ñu xam ne fon bi digalal bàyyi la ah digalal bàyyi la maa ngi leen di xamal ne fond bi itam ndimbal la ci bàyyi maa ngi leen di xamal ne fond bi ndimbal la pour taalibe Baay yëpp itam gis ngeen bon ne fond bi liggéey pour dollee ko liggéey pour taxaw liggéey pour wone ne mën nga dara mën ngaa yokk dara loolu moo tax a jóg fond am na lu mu def loo xam ne gis nañ ko école bu école bi ci la bokk euh, sëriñ si gan yu ñuy teral ci lañ bokk ak euh, bibliothèque bi ñuy tabax ci la bokk kuy tabaku nag foog nga am dara kuy am dara nag yaay génne dara te buñ ko defee dinañ gis barke boo xam ne géntuñ ko woon man maa ko wax man maa ko wax sax waaye bàyyi moo ko wax. bon bii nag yëkkati nañ ko ngir bàyyi heure bi ko def ci Medina sos ko ci Medina te heure yi ñu ko gën a soxla ci na la bokk. li bàyyi gën a fonk ci àddina mooy jumaam ji ak école bi te jumaa ji man boobu mën naa koo seede ndax daaw ci heure bii nii mun nañ ma indilee ci dix millions boobu ba pare jënd ci itam lu mat fukki climatiseur yu armoire yu taxaw yii loolu itam bokk na ci li nga xam ne fond bi muñ ci dimbale mu gaaw kon nag kii njëriñam ñépp xam nañ ko fi nekk kon kuñ ci oo rek war ngaa def mbooleem kilifa yi nga xam ne euh, ñu ngi teew fii di sant yàlla bu baax ci daje bi nga xam ne moo tax ñu daje tey jii di la jotal nuyoo ak xalifa Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass waaye di jottali nuyoo ci mu jëm ci président de la république Macky ak premier ministre am ak mboolem membre yu gouvernement am ci rafetlu taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko ci xew-xew yi ñu jublu si te daan jublu si ngeen ci daan am ay taxawaay yu commission bi nga xam ne ñoo amee organisation gàmmu liggéey nañ ci lii yàgg ak waa Kaolack muy gouverneur muy préfet buñ demee ba nga xam ne nag am na yu ñu war a tënk ak yoo xam ne nii jéggi na kawlax ñu ne nañ ko ñëw fii ci yow euh, nga ubbeeku ubbeeku bu mat sëkk boo xam ne dañ yëg ne euh, da ngay def loo xam ne danga xam ne askan bi ñoo ko moom waaye tim wér na la am nga ndigal ci président de la république pour nga taxaw ci taxawaay bi nga xam ne moom moo ñu ngi lay ndokkeel ci loolu di ndokkeel président di ndokkeel mbooleem membre gouvernement bi di ndokkeel tim képp koo xam ne rek yàlla may na la nga am taxawaay pour war a jàpp ci bés bi nga xam ne gàmm yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne nabiyu la yërmaande la tim pour àddina yépp kon yërmaande googu mbindeef yàlla yépp ci lañ bokk ci li gën a matale nit ñi ci li jagoo jullit ñi ci li gën a jagoo kon bés la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk bés ci teraanga la ndax bés ci ndollal bi nga xam ne moom la yàlla maye ci feeñ ak yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin loolu ñu la lu may nga nekk yërmande pour ñeyal àddina yépp mu indi ay jàngat ay jàngale yoo xam ne ñun tey ci Sénégal ñu ngi sant yàlla bu baax lu bari luy xew ci sous raison bi bu ñu ci yàlla musalee yàlla ak gàmmu ak mag ñi nga xam ne ñoo doon gàmmu di jàngal nit ñi naka la ñuy bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka la ñuy amee xol yu yaatu pour xool ci jaamu yàlla yi jëflanteeg jaamu yàlla yépp ndax boo xamee ne sa yonentu yërmaande la pour àddina yépp kon yow tim loolu boo ci seetloo rek da nga xam ne yow da ngaa war a nekk yërmaande pour àddina yépp mu nekk occasion boo xam ne tim mag ñi moom lañ doon exploité pour jàngal ñi nga xam ne demuñ ci daara toog di jàng danañ ci lëm jàngale ci loo xam ne nii ku ci nekk rek mën nga cee xam xamee sa bopp mën nga cee xam xamee yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko te bëgg yonantu ku nekk xam na ne ci lislaam la bokk ndax laa yuminu ahadukum xata akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nnaasi ajmain moo tax Baay Ñas daf daan tuddee gàmmu mutamar arbaabil mahabati maanaam sommet bi nga xam ne ñooñ bëggeel ñoo ko moom ñooñ bëggeeli kan ñi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi bëgg yonent bi mooy ñi bëgg alxuraan ñi bëgg yonent bi yi ñooy oorkat yi ñooy ajkat yi lu baax yi ndax lislaam euh, pas-pas la ak jaamu yàlla waaye ak jikko yu rafet gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi moom la ñëwoon pour mottali yooyu yëpp nag gàmmu dafa nekk occasion pour ñu jàllale loolu ci suñ biir nekk occasion tim pour ñu dajee ci jàmm leelante ñam ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko ayul islaami afdalu ban lislaam moo gën mu ne itaamu taami wa ifshaau salaami ala man arafta wa ala man lam taarif ban lislaam moo gën mu ne leele ñam ak matalay jàmm siiwal jàmm ci koo xam ak ci rek la moo tax ak tagg yonent ay jikkoom ci moom moo tax taazimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam màggal yonent bi ci bi si gàmmu lay wax loolu ci bëri lu ngeen di julli ci moom te jàng ay taggam ci dundale alala ci moom mu ne gisuñ jëf ju gën a baax loolu man ci li ma yàlla wan te xam nañ ne jullit la boo xam ne bu waxee ne suma expérience ci lislaam lii la expérience boobu ku baax ku nekk yaa ko moom ku nekk mën nga koo jëriñoo moo tax ñu ngi occasionné euh, profito ci bés boobu di oo mbooleem jullit ñi waaye di oo mbooleem l'humanité ci bés yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yàlla daf ko yónni pour yërmande di ndokkeel jullit ñëpp di ndokkeel suñu bopp di ndokkeel xalifa bi di ndokkeel président Macky Sall di la ndokkeel yow euh, ministre leen euh, l'intérieur mi nga xam ne yàlla moo la baaxee loo xam ne yàlla daf koy pareel ba pare yàlla def la ci ñiy pareel loolu yàlla daf laa bëgg a tagg yàlla daf laa bëgg fay yàlla du liggéey loo ku a fay kon nag ñu ngi lay ndokkeel ci loolu di ndokkeel mbooleem ñi nga xam ne ni ñu ngi taxaw pour ànd ak ñun ci bés boobu ñu ngi ñaan yàlla ñu dugg ci jàmm génn ci jàmm gan ñi ñëw ci jàmm wa te bu genn gan indi ci senegal lu koy yàq te bu genn gan jugee Sénégal lu may dana yóbbaale li nga xam ne nii moo koy jëriñ ndax loolu rek moo tax gan ñi di xëtt frontières yi di ñëw fii nga xam ne Cheikh Ibrahima Yaram dem na ba nga xam ne xëtt na frontières yi xol yi moo tax bu ootee rek nit ñi xëtt frontières yi jugee fu nekk dénkaanal ngeen ko wax ngeen ko duñ ci jaaraat dañuy ñaan yàlla rek li nga xam ne sàkku nañ ko fii te ñiñ ko sàkku ci ñoom ñëpp ngeen jox leen digal ku nekk taxaw na ne liñ ma digal danaa ci def li ma man jaam yéene rek la am waaye kiy def dëgg-dëgg mooy yàlla alfaailu xaqiqatan huwa allah kii def dëgg-dëgg mooy yàlla kon yàlla na yàlla jàppandal ñëpp ba nga xam ne danañ mën a motali gàmmu gii ci li nga xam ne ngërmaande yàlla la ngërmaande yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk njëriñ boo xam ne tim dafay delluwaat ci ummatul islaamiya yëpp waaye delluwaat ci Sénégal delluwaat ci ñun ñëpp ñu ngi lay gërëm di gërëm tim ñu ngi am ay mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi fii ci ministère bi di liggéey fii ci njiital Abdoulaye bu ñu nekkee ci fii yéen lañuy ñuy liggéeyal ndax luñ def fii mu baax rek dem Medina du jàpp ne benn taalibe rek moo ko def waaye dañuy jàpp ne seul benn liggéeykat moo ko def kon ñooñu ñu ngi leen di dénk ndax yow la ñuy liggéeyal seen turtim la ñuy gën a defar ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu ngi leen di ñaan ak sëriñ bi di wax amin ci ñaanam yépp di ndokkeelaat jullit ñépp di wax la bàyyi waxoon rek hani an li ibrahima laaxa hilaaluhu hilaalum bada linnaazirina jamaaluhu hilaalu fa tëmma lana al bushra wa am amma nawaaluhu comme dafa wax ne maa ngi ndokkeel Ibrahima weeram feeñ na weer wi nga xam ne taari weer woowu feeñ na comme weer wi dafa am taar ñun ñëpp war nañoo góor góorlu ba taari weer woowu luñ ci mënta yokk duñ ko ci wàññi luñ ci mënta yokk duñ ko ci wàññi te dara du ko taaral nag lu may topp delluwaat ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaat ci lislaam bu wér delluwaat ci jikko yu baax yi ndax am na benn benn ñoo xam ne dañuy wax ne gàmmu lii walla gàmmu lee ñoom ñoo xam gàmmu yi nga xam ne ñoom la ñuy weddi waaye ñun gàmmu yi nga xam du dara lu may lexe la ñam gane la gan jàngale juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam jëriñante laayante biir dimbalante te kenn mënta wax lislaam lu may la wax yooyu tudd yàlla boole dimbale yal na yàlla jàmm ci Sénégal jàmm joo xam ne danañ xam ne jàmm la ñu ngi ñaanal président de la république benn waaye dafa waxoon ne boo duggee ci oto di ñaanal chauffeur bi ñaanaloo chauffeur bi sa bopp ngay ñaanal kon bu muccee Sénégal mooy mucc waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla tàggat ba teg ko ci yoon wi nga xam ne nii moom la Sénégal di di xaar ci moom ba mën a àggale ci Sénégal Sénégal bi nga xam ne sénégalais yépp moom la ñuy gént Sénégal bu jàmm Sénégal bu démocratie Sénégal bu liberté bu libre Sénégal boo xam ne jàmm daf koy matale comme ni nga xam ne moom lañ am ba léegi waruñoo nangu kenn yàq ko waruñoo dimbale kenn ku koy yàq ndax ñu bëri dañoo jàpp ne luñ bokk mooy loo xam ne ku nekk am nga droit yàq ko waaye luñ bokk mooy loo xam ne ku nekk mën nga cee defar waaye kenn ka sañut ko yàq ku nekk mën nga cee defar Sénégal ñëpp mën nañ cee defar waaye kenn sañut ko yàq yàlla bu Sénégal yàqu ci benn loxo yal na yàlla dimbale ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Baye Niass waxoon ci guddi yonent bi dara lu may yàlla may na may na ma ko ñi ngi delluwaat di tawassul ci ñaanam yooyu yàlla nangu ñaan yi yëpp yàlla xool jëm ci ñun ñëpp ba ci yërmande ak ba ci ngërmaande allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ughliq wal xaatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهل حق قدر المقدار العظيم صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعصير وتكوننا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير duma jeexal lu may ma nuyu président Bengelloune di nuyu le maire Serigne Mboup salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu dara bàyyi fu ngeen mën si nekk fond baa ngi ni taxaw liggéey na liggéey yoo xam ne gis nañ ko fuñ daan sonne di ko dajale addiya pour chérif yi nangam ak nangam ak yëpp fond bi tëj na ko def na ko taxaw na fa taxawaay yoo xam ne noppal na li ñu bëri donc bon war a nekk maa ngi leen di wooyee ñëpp taalibe yëpp ñu xam ne fond bi digalal bàyyi la ah digalal bàyyi la maa ngi leen di xamal ne fond bi itam ndimbal la ci bàyyi maa ngi leen di xamal ne fond bi ndimbal la pour taalibe Baay yëpp itam gis ngeen bon ne fond bi liggéey pour dolleeku liggéey pour taxaw liggéey pour wone ne mën nga dara mën ngaa yokk dara loolu moo tax a fond am na lu mu def loo xam ne gis nañ ko école bu école bi ci la bokk euh, sëriñ si gan yu tedd yi ñuy teral ci lañ bokk ak euh, bibliothèque bi ñuy tabax ci la bokk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 ndax daaw ci heure bii nii mun nañ ma indilee ci dix millions boobu pare jënd ci itam lu mat fukki climatiseur yu armoire yu taxaw yi loolu itam bokk na ci li nga xam ne fond bi mu ci dimbale mu gaaw kon nag kii njëriñam ñëpp xam nañ ko fi nekk kon kuñ ci oo rek war ngaa def